Cheikh Diop secrétaire général bu confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement du CNTS FC yor tamit euh, syndicat national bi ëmb liggéeykat yu yëngatu ci wàllub kon hydrocarbure muy kon pétrole ak gaz Cheikh Diop ñu ngi lay nuyu. ñu lay dalal jàmm ci matinal bi yow kon euh, syndicat bi nga jiite ci wàllub hydrocarbure di yëngatu kon ci pétrole ak gaz ñoo soobu ci ab euh, ñaxtu ñetti fan a ngi nii tey lan moo ko waral. waaw euh, dina indi tuuti leeral rek syndicat bi euh, dañ ma cërale rek président muy cër bu nga xam ne cër bu sagal ma waaye ñeneen ñoo ko jiite ñu jëm ci congrès bi nekk bi intérimaire bi Sara Fonarel mhm. waaye nag sama syndicat de base foofu laa bokk mhm. euh, jiite it central bi nga xam ne ci la syndicat bi bokk suivre tamit activité yi fay am yëpp ndax grève bu ñaxtu bi li ko waral mooy convention bi nga xam ne dañ ko dañ ko càmbaroon pour secteur u pétrole yëpp depuis deux mille dix huit ba deux mille dix neuf lañ ko signé février deux mille dix neuf convention boobu nag ñëpp ci bokkoon bi ñu demee ci biir négociation yi ñi nga xam ne ñoo jëwriñ yi yor transport hydrocarbure ne ñoom daal gis nañu ne convention bi ñu ko signé ndax dafa xaw a diis ci ñoom ñu nangul leen loolu euh, ñu ne leen nag comme suivre ngeen négociation yi ba fii te loolu mooy sabab bi tax ngeen di génn ñun dañ leen di defal beneen proposition parce que aussi secteur transport hydrocarbure mënu ñu ko bàyyi noonu rek mm. kon dañ leen defal proposition convention bu nga xam ne dafay méngoo ak seen euh, mën-mën méngoo ak seen situation ñu d'accord ci loolu ñu dem uti expert mu defal ñu proposition ñu toog ñun ñëpp waxtaane ko ba d'accord ci ñun ak ñoom li may wax ni ëpp na at bañ ci d'accord rek ñu jébbal ko ministre du travail ne ko lii la ñu d'accord bëgg ko négocier ñu war a dugg nag ci négociation euh, convention boobu nga xam ne mooy tënk képp ku nga xam ne da nga nekk ci transport hydrocarbure boobaak léegi nag gaa ñi daw table de négociation bi gisatuñ leen fenn waxatuñ ci dara ba ñu relancé ba sonn ministère bi relancé ba sonn loolu moo sabab grève bu tey bi grève bu démb bi ñu déclenché pour soixante dix heures. Hmm. ndax bu jeexee dangeen ngeen koy tollantiwaat. Euh, ñun fi ñu toll nii parce que nag euh, il faut que ñu nangulee bi grève bi tàmbalee démb ministre de l' énergie ak équipe am ak sax euh, ci teewal ministre du travail woote nañ waxtaan fa lañ guddee nañ fa lool pour ñu xool nu ñuy def. pour euh, arrêter grève bi mais aussi ni ñuy def pour saafaraal ñu li nga xam ne moo ñu naqari bañ grève hmm. loolu ñu ngi ci waxtaan boobu am nañ yaakaar ne euh, tey jii bu ñu yeggalee dinañ mën a néggandiku euh, ba waxtaan bi ba xam lan lay jóg hmm. waaye nag ñuy wax ñun ci syndicat dañuy dañuy suspendre mot de grève bi bu fekkee waxtaan nañ ba jubóo ci ci waxtaan bi continuer na ba ñu am solution bu nga xam ne mun na jur waxtaan bu nga xam ne bu du taxawati ba ba ñuy e, yeggal. Hmm. ñu ngi daal ci loolu waaye jàppaguñu dara ci e, mbirum grève bi. woote nañ aussi assemblée générale bu nga xam ne liggéeykat yi ñooy teew pour décider nag lan la ñu war a def bu leen rendre compte ci waxtaan bi nga xam ne moom lañ sumb te war ko yeggal tey ci hmm. bi nag ban jeexital la am ndax ñu bëri sentiruñu ko liggéeykat hydrocarbure bu fekkee dañuy grève ban euh, jeexital. xam nga grève bu pétrole moom euh, euh, li tax duñ koy faral di def. Hmm. dafay xaw a métti ci ñëpp. ndax pétrole bi ci courant bi dépendre. Hmm. pétrole bi ci la ndox mi dépendre. Hmm. transport bi ci la dépendre waaye it yu bëri ci la ñu dépendre ak aussi ñu dépendre ci électricité. kon dafay tekki ne aéroport bi ak port bi kon dafay tekki grève bu pétrole bu yàggee mun na jur seexital euh, bu métti métti métti ci réew mi loolu nag euh, yaakaar naa duñ fa egg waaye grève bu pétrole daal moom euh, def li mu ëmb ci économie bi dafa bëri moo tax duñ koy faral di def lu bëri boo gisee grève bi ñu yemale ko ci secteur transport hydrocarbure dafa am luñ ci jublu hmm. section syndicalu pétrole juróom-ñaar juróom-ñaari section yi raffinage la distribution stockage soute maritime aviation gaz ak transport bu fekkee dañuy yóbbu ñëpp grève ci benn bés lépp mun naa taxaw hmm. waaye bu fekkee transport moo dem grève mun léegi mun na doxali benn fan ñaari fan ba ñetti fan te dara bu taxaw waaye nag loolu mënul mënul yàgg hmm. ba tax na bëgg nañ daal tawati liggéeykat yi ñu taxaw ci li mu gën a gaawee pour que ñu mën a sóobu ci waxtaan bi am solution arrêté grève monsieur mmh. Diop nga wax ñu risque yi nga xamante ne liggéeykat yu yëngatu ci wàllu hydrocarbure dañu koy jànkonteel bu yàggul dara dund nañu lakk-lakk bu metti ca Ngadiaga yan risque ngeen di faral di jànkonteel. xam nga secteur pétrole pétrole moom euh, dafa laaj activité yi ak exploitation bi dafa laaj sécurité. doy mmh. il faut que nag ñu nangu ne sécurité ci réew mi ci wàllu pétrole am na. loolu moom wax dëgg yàlla am na. Hmm. incident bi am gajaga li muy am bariw waaye ba amee it euh, xamaloon nañ leen ne leen installation yi nga xam ne moo nekk ci fépp fu ñuy exploiter pétrole taxaw tëral nañ ko tëralin bu nga xam ne. Hmm. Euh, jël nañ disposition yu bëri pour que euh, musiba mi du du bari. Hmm. li xew gajaga ba mu tàmbalee naa leen ne euh, lakk bu yéeme la waaye ni mu yéemee dangereux wu lool waaye nag lakk moom fu mu am rek xam nga xel du dal yéeme na lool waaye yéeme bi moo ëpp danger bi loolu euh, waxoon nañ ko ci njaal bi te effectivement aussi loolu loolu moo am yàlla dogal na suñu liggéeykat yi malgré que jëli nañ ay ay ay doomu bitim réew waaye suñu liggéeykat yi mën nañu wax ne eh, daanaka ñoo fay lakk bi hmm. eh, kon pétrole liggéeyam activité am dafa ànd ak sécurité sécurité boobu nag wax dëgg yàlla eh, mën nañu wax ne am na am na ci installation yi am na ci réew yi am na ci doxalin yi am na ci formation liggéeykat yi ba ci transporteur hydrocarbures yi ñuy wax loolu moo tax sax d'ailleurs ñu wuutale leen ak transporteur routier ba di leen utal ndax formation bi ak li mu laaj yépp ci liggéey bi dafa nekk lu wuute ak dawal oto kese. Mhm. métier la. Mhm. ay kuréel yuy aar wala boog di taxaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy way jëfandikoo yàgg nañu ŋàññi ni kon Sénégal euh, njëgu pétrole ak euh, gaz euh, daf jéggi dayoo ëpp sax dëkk yi nga xamante ne ñoo ñu wër te moo ne ñu bari fii lañ koy jël si lan moo ko waral bu fekkee dëgg la. loolu man il faut que ñu ñu ñu def ci dànk sama gis-gis parce que structure des prix boo ko xoolee dëgg la état Sénégal lim ci lim ciy gagné bari waaye boo xoolee également dañu taxawaloon benn structure bu nga xam ne mooy càmbar prix yi structure boobu dafa waroon di réunion quatre semaines yu nekk maanaam weer bu weer bu teg tuuti bu nekk war nañu réunion pour xool prix yi nga xam ne moo am bitim réew méngoo na ak prix yi nekk ci biir réew léeg-léeg pétrole day wàcc di yéeg ca bitim réew hmm. bu wàccee structure boobu bu càmbaree filière bi yépp ba mu egsi ci réew mi dañuy fixer prix wàcce ko bu yéegee noonu lañuy def loolu buñ ko dee def weer bu nekk walla ñaari weer yu nekk prix bi mun na toog fi mu toog waaye bu ñu demee ba ñett ñeenti weer ça dépend loolu nag ci cours mondial mun na changer changement yooyu nag yéeg ak wàcc la réewum Sénégal man yaakaar naa ne système boobu buñ ko bàyyee mu dox dina dina baax waaye réewum Sénégal dafa jëloon décision fixé prix yi arrêté ko presque système boobu doxatul système boobu nag bu ndoxul dina jafe nga méngale prix Sénégal ak prix yeneen réew yi parce que bu fekkee prix bi yéeg na te Sénégal mente yéegul day yéeg ci yeneen réew yi bu fekkee aussi prix bi wàcc na te Sénégal wàccul day wàcc ci yeneen yéen kon méngale bi dafay xaw a waaye li nga xam ne daal mën nañ ko wax mooy euh, boo càmbare structure des prix bi euh, euh, wax dëgg yàlla li nga xam ne Sénégal teg na ko ci ay taxes ci prix bi mm. xaw na jéggi dayoo tuuti. Mhm. ñu dundoon fii ci senegal ci weeru mars bi wees euh, lu doy waar ak kon fitna gu taratar ñu nemmeeku ci ay yàqute nga xamante ne yenn ci ay station euh, service yi euh, dund nañ ko loolu ban njeexital la am ci secteur hydrocarbure bi rawatina yéen ñi fay liggéey. waaw loolu am na njeexital bu métti ci suñu liggéey. Mhm. parce que nit ñi dañuy faral di jaawale intérêt français yi ak intérêt total Sénégal dëgg la nag intérêt français eh, am na ci total parce que total groupe français la. Mm-hmm. waaye boo ko xoolee bu baax total Sénégal eh, capital bi eh, téeméer boo jël sénégalais yi ñoo moom fanweer bi ñoo ko moom. Mm-hmm. beneen fànn bi mooy emploi yi nga xam ne ñooy xëy ci total ñi nga xam ne ñoo nekk ci direction bi ak ci seen entité yi dépôt yeeg yooyu ak gaz. dépôt gaz ñooñu toll nañ ci huit cent travailleurs ak salariale bi takku na euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci station service foofu moom xaalis ba koy yëngu yépp capital sénégalais station service yi moom cent pour cent capital sénégalais dañoo loué installation totale jël seen quarante trente cinquante millions def ci di liggéey jël ay sénégalais station boo ci jël en moyenne station yi am nañu vingt employés en moyenne ñu gëneen ñi nga xam ne diggu doomu am nañu ko ëpp am nañu ko yées tuuti boo seetee station Total yi li ñuy jël ci ay doomu sénégalais toll na ci mille six cent travailleurs direct ak emploi indirect yi mënuñu ko xayma Total aussi ñu muy liggéeylu ci entreprise yi comme transporteur yooyu nga xam ne bokkuñu Total transporteur yi aussi ñi seen citerne yi ñu bindi Total cent pour cent sénégalais loolu emploi indirect yi total di créer loolu it kenn xamul nu mu doon donc bu ko nit ñi comprendre loolu dinañ xam ne dëgg la marque total la waaye nag ah suñu alal la ngi ci suñuy liggéeykat a ngi ci te ñu bàyyi ko rax ca dolli principe bu di manifester lu la naqari wala nga am sañ-sañ bi wax li nga xalaat di génn ci mbedd mi loolu nit ñi dañ ci ànd waaye loolu dàqul aussi sañ-sañu liggéey ñi nga xam ne dañ am liggéey aussi bu ñu yàq seen liggéey parce que ñun dañu bëgg a exercer seen sañ-sañ kon nañu li ñu bëggee exercer seen sañ-sañ nañu respecter noonu aussi suñ droit de travail bàyyi suñu outil de travail loolu lañ ko loolu lañ ko gisee ñun mm-hmm. alors euh, euh, fetu premier mais di bëccëg euh, bi ñu jagleel liggéeykat yi daanaka ay bis rek a ci des CNTS/FC bi nga bokk bi nga jiite lan la ciy waajal ak bu ñu mënoon def xayma lan moo ci soppeeku ci seen cahier de doléance diggante daaw ak ren. waaw xam nga mbas mi dafa ñëw jaxase li ñu daan doxal yëpp ci àdduna bi. ak hmm. ci Sénégal. premier mai daaw jotuñu ko feete ndax li mu laaj ci mobilisation ak ci génn ci mbedd mi ak grande revendication rassemblement loolu bu mun a nag ci situation bi ren aussi loolu la ñu jàpp waaye terewul parce euh, que nañu yéene ñu ngi proposer en tout cas pour def euh, première mai virtuelle maanaam daje bi ñu doon dajeeg chef de l'État ñu def ko par vidéo conférence loolu la ñu proposer waaye amaguñ tontu. Mm-hmm. ni ñu daan euh, manifester yi ñu daan def ak daje yi ñu daan dajeeg liggéeykat yi saafonte bi ñu daan saafonte. Euh, yooyu ñu def ko aussi par virtuel comme ça liggéeykat yi mën a wax ak seen i njiit fu ñu mën di nekk. Hmm. ñu xalaat ci loolu yëpp. waaye nag terewul cahier de doléance moom dinañ ko déposé hmm. Covid bi moom arrêté na lépp waaye mënul arrêté doléance yi yi moom dinañ ko déposer fañ ko daan déposer comme niñ ko daan defee at mu jot waaye it dinañ taxaw ci pour ñu càmbar ko ci digg at mi pour que ñu xam doléance su liggéeykat yooyu lan lañ ci mën a saafara. loolu moom noonu la ñu fas yéene doxalee première marraine mooy mhm. fàttali bokk nga ci syndicat national bi ëmb liggéeykat yëngatu ci wàllu pétrole ak gaz nga jiite confédération nationale des travailleurs du Sénégal CNTS FC Cheikh Diop ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di